ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sante suñu borom subhanahu wa taala ci taxawaay bii nga xam ne histoire dootu ko fàtte di sant ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk yi yëngatu ci wàllu sàmm jikko yi aar jikko yi di ci def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la euh, sukkandiku ci seeni poos ngir jullit ñi nekk benn ngir jullit ñi taxaw seen taxawaay ci digle lu baax encouragé ko jëlee fi lépp loo xam ne soppaan la ñu ngi leen di ñaanal borom bi tabaraka wa taala seen yéene ji nga xam ne ñoo ngi yéene ko bokk bokk ko jullit ñi yépp borom bi mën a sottal yal na ko sottal ci nam gën a matee ci gën a mucce ayib bu ngeen seetloo bi ñu taxawee li jëkk njëkk a def mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa kàddu googu ñun ñëpp xam nañ li muy tekki kàddu jàmm foo taseeg sa mbokkum jullit moom ngay njëkk wax kon diine ji mooy diine jàmm ki ko joxe muy suñ borom subhanahu wa taala tudd jàmm asalaam bokk na ci ay turam moo tax jullit mënta doon ku dul nitu jàmm jullit nag mooy koo xam ne suñ borom subhanahu wa taala daf ko jox mission boo xam ne ci lay ko amut beneen sañ-sañ bu dul tënku ci mission boobu bu fekkonte ne xel mu mat dana may doom aadama mu ñàkk caa tënku ngir xelam mu mat kooka rasulullahi la doon doon sallallahu alayhi wa sallam te la xelam may rafet rafet rafet suñ borom dana ko tënkul ci mission bi tënkul ci risaala bi muy message bi kon mbokk yi ñun amuñu sañ-sañ yu tinkeeku li nuy tawat yépp nag dara yóbbee wut ñu ko lu du tinkeeku ci fi ñu suñ borom tënkoon kon bu ñu bëggee euh, jëlee fi lépp loo xam ne mooy mbon gi ñu di ko xeex nañ fexe xam garab gi koy meññi gan la garab googu moom lañuy tuddee fii ci sunum réew laïcité muy diina ci li ñuy tuddee république di diina joo xam ne it ki ko rëdd iblis la ak boppam Lucifer aw tur la wu ñuy nëbbee turu iblis ndax iblis ñëpp xam nañ ko waaye bu ñu nee Lucifer ñu bari duñ ko xam te tey la franc-maçonnerie mondiale nëbbatut boppam ci ne moom Lucifer lay jàmm kon bu ñu suñ borom joxee lu toll ni lislaam njabootuk iblis bàyyi ko ca fu sori fu mel ni France par exemple ñëw nañu kat dañ leen a indil lu gën li leen seen borom joxoon ñu nangul leen ko lu ñu dal rek loolaa ñu ko teg waxtu wi gàtt na duñ mën a guddal ndax ñi fi jiitu li ñu wax doy na sëkk